bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursaliin sayyidina wa mawlaana Muhammadin Mbakin wa ala alihi wa sahbihi sayyidina wa tarixin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi Muhammad rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam yeesal suñu taalibe ak suñu njëbbal ak suñu yaakaar ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di ñaanal suñu Muntaxa suñu borom yàggal ko fu la téyoon ko ak njaboot Sëriñ Tuubaa gépp tey ñaanal suñu bunt ci Sëriñ Tuubaa Sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké ak magam yu tedd yi Cheikh Sidi Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad ak mboolem njaboot Sëñ Tuubaa képp suñu borom yàggal leen fi téye barke Sall ci ay kàddu ak i cant ak di di di ci jiital suñu xalifa suñu di di di di jëriñ suñu ne moom la moom laa topp ci moom suñu jeex yónni ko fi moom la Sëriñ Cheikh yabal suñu jeex yónni ko mu war a ñëw mu a yëkk ci kàddu Sëriñ Cheikh joxe ay cant naa ay kàddu moo gën a mat samay kàddu ah euh, te it li fi euh, li fi li fi suñu mbokk yi yiy jiitu yëpp ñu mën si ci di sama rak mu si lañ ci wax na Cheikh Abdoul Ahad ak euh, suñu mbokk yi fi jiitu yëpp wax li wax wax am na solo lool te kenn mënut a wax lu ko ëpp macha allah xanaa sëñ sëñ bi ma jox ndigal rek waaye man sama kàddu amul amul solo ne ay kàddam bu dikkee mooy lépp. maa ngi gën a sonn ñëpp rek di sëñ sëñ Balla maa ngi lay sant bu baax a baax sa taxawaay ak sa posteef bi ngeen am yéen waa taxawu Madiyana ñëpp macha allah dina gën a soññ te xam ne ab gox moom kenn ku ne yaa ko mën a defal sa bopp kenn wut see xaar kenn kenn wut see xaar kenn kenn wut see xaar état kenn wut see xaar kenn naam moom la wax euh, euh, waaye kenn wut ko see xaar da war a dëkk nekk sa nekk si état fekk na si ndax euh, nii ko nii Touba Ca Kanam def rek dafa dafa wane yoon dëkk bépp noonu war a def kenn ku nekk sa gox ba nga nekk nga nekk si bu état di ko fekk ñoo ngi nuyu préfet préfet sëñ Makhtar Diop ñoo koy nuyu. di nuyu si préfet di nuyu action préfet yi bu baax a baax macha allah kaddu yi am na solo lool macha allah te di ko jox cër bi nga xam ne moom la ko suñu borom jox rek jafe-jafe yi fi dégg ko mu jàll ko di am euh, mel ni mbett boo xam ci am naa ko mbett tuuti ndax jàppoon naa ne ndaje mu toll nii bu ñu ko yi nga xam ne ñoo nekk assemblée nationale représenté Touba di war a fekkee jafe yi waa Madiyana di ñaxtu war ko yóbbu si assemblée nationale te jamono ji bis yi bis bis si at mi waroon noo ñëw fekkee jataay bi xam jafe-jafe yi jëm sa assemblée nationale ministre bu toog bu waxee ñu wax ñu jox na ko jafe-jafe yi waaye benn député jaarul fi seetlu naa ko jota jotaay bi député yëpp juróom-ñaari député yu Touba ñetti député ngi di ñëpp ci opposition bi ñaari député nekk nekk ci APOA kenn teewul sa tànk sa tànkam na nga xam ne ba élection ci bu fi kenn jaar di wax benn kàddu bu fi kenn jaar bu soxlaa di di dànqal nit ñi te bu nit ñi amee jafe-jafe du ci taxaw dañ ci bàyyi xel wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh